xam nga lii moo tax jarul sax jaru ko quoi parce que dañuy ñëw di di wax kooku dëgg ngeen di ngeen di ay affaire di comédie moo tax dëgg bi wakal comédie rek lay wakal man lenn bi affaire bi lenn la booy ñu ngi leen di rey si mbedd bi ngeen di reetaan di foo di pompé di kii continuer leen amul problème après ku nekk dina ko yëg politiciens ay politiciens lañ seen bopp lañ fi nekkal ñun Sénégal moo ñu tax ñun ñii di dee ni ku nekk mënoon a nekk moom day fekk mu fekk la si mauvais endroit bi au mauvais moment kese li ñu fi indi xamalal la pour gars yi may ñu suñu jàmm politiciens yi may ñu suñu jàmm Sénégal am liberté li ñu fi indi du benn politicien yéen a ngi dégg lu ñuy wax du benn yow yaa am fi indi yow man maa la fi indi kenen ak keneen ak keneen ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy xeex kon mënuñu ñëw ba fii ba pare di bañ a comprendre lan moo ñu fi indi. yaa li ñu taxaw wàcc xam nga lan la booy yi ñuy rey man loolu moo ma wàccee. politicien wàcceewu ma rek booy yi di génne di xeex pour démocratie Sénégal ñu rey leen jeunesse bi loolu moo tax ñu wàcc jeunesse bi yeewu xam seen droit loolu moo tax ñu wàcc yaa booy bëri ñu ngi def li ñuy def te comprendre ñu ko fexe leen ku comprendre nga fexe sa morom moom mu comprendre loolu moo ñu tax a jóg yéen